yaakaar naa ne euh, doon na loo xam ne ni lu ñu ñor la ñun étudiant bu leen waaj ndax ñun ñi taxaw ñi ñëpp ñi taxaw sama ginnaaw ñun ñi ñëpp yàlla dogal na ñaari at jàpp ñetti at ginnaaw ñun lañ amoon bac est-ce léegi nag ba ñëwee université Cheikh Anta Diop ba léegi situation yi fekkee étudiants yi di dund vraiment nekkul loo xam ne nii lu jéggi dayoo est léegi nag ñun ñun ñun jeunesse bi ñun étudiants yi nga xam ne ñoo ngi fii ñun tey dañoo bëgg adresser la jeunesse de la commune de Boulel yéen jeunesse su commune de Boulel yéen la ñu wax ak muy yéen suñu parents yéen suñu grand frère yéen suñuy sœur yi nga xam ne yéen yi ngi yéen a ngi nekk dans la commune de Boulel tey seen i doom seen i rak seen i jarbaat ñoom ñoo am métit ak njàqare taxaw di wax ak yéen ndaje mi nag tey boo gisee ñu organiser ko mooy ñun étudiants yi dañoo nekk di dund coono bu méttee méttee méttee méttee coono boo xam ne nii yaakaaruñ ne woon ne danañ ko dund si àdduna ndax dëgg la am nañ ba def nañ li war a def ba ñëw université am na Diop yàlla dogal ñu waroon fay fekk suñu grand frère yoo xam ne nii waroon nañ ñoo mën a jàppale ba ñun ñu mën a dund dans de très bonnes mais yaakaar naa ne loolu lu bëree bëree bëree bëri amul ndax mën naa ne sax suñ suñ grand frère yi suñ étudiants yi nga xam ne ñooñu fi jiitu ay ati mën naa ne tey jii dañoo seetaan ndax boo xoolee ñun ñii ñëpp ngeen gis nii ni ñu toll. presque mën nañ vingt et quelques personnes vingt et quelques personnes. est-ce que ci bett ñun ñii ñëpp ñooy bokk benn sàmmur yu ñu faral. Ah te sàmmur boo xam ne nii mu sax deux mètres. Ah dafa ñaaw ah. dafa ñaaw dafa ñaaw te ñun ñu ne biir commune bu lañ dëkk est-ce que comprendre ñun ñii ñëpp dañu dund dans très très très très très difficile condition ndax da ngay gis ay étudiants yoo xam même sàmmur bu nekk. ñun mënuñ fa mën a am ñun ñëpp ñu xaj fa pour fanaan fa dañuy fanaan ci ay couloir fu ne ñu taxawalu jëm mel ni ko am mbokk. te ñun yaakaar naa ne loolu ñun étudiant bu leen wàll ñun yaakaar naa lu wur nekk suñu cër quoi te loolu lépp suñu grand frère yi dañoo seetaan dañu waxante dëgg. waaw étudiant yi yéen ñi ñuy jiitu fii dañu ñoo seetaan ñu ko dalee bu baax a baax baax baax.

waa Boulel waa Boulel waa. est-ce que comprendre nga. applaudissez li ci des. beneen bi ci des su ma jugee ci ancien étudiants yi nga xam ne ñooñu fi jiitu waroon ñoo dalal tey seetaan ñu ba ñu dund coono yu métti yi damay attaquer directement les autorités mooy autorités nga xam ne ñoo nekk biir dans la commune de Boulel. yor yor yàlla jox leen loo xam ne ni mën naa ne lu dul jeex la. tay seen dom ñoo ñew fi tay université Cheikh Anta Diop di souffrir ah way lu mat presque 30 personnes ci benn néeg boo xamni ni muy fa sax xat dañu obligé di fanan ci ay couloir te ñun ñu ne ay domou bulel lañ ko commune bulel gis ngeen ni mel ñaato borom mi alal la fa yalla def te ñom mënu ñoo jappalé kon yaakaar naa ñoom tey suñ situation ñuy dund ni ñom dañ ci am part de responsabilité bu rëy rëy ñom dañ ñoo sétane bu baaxa a baax a yeen suñu parents yi la wax suñu dañ ñoo sétane bo leen yakaré seen doom ñi ngi dund ci ay conditions yu baax non non yeen a ngi nax seen bop fi muñ rek mo fi am mais ñun conditions yu metti lañu dund. ah oui te suñu autorité yi ñoo ko teg ak tey boo gisee ñu def lii bëgguñ ko def mais dañoo sës. ndax lu fees day tuuru te ñun ay jeunes lañ dañoo am ñun dañoo war a ñëw fii jàng teg dem suñ dëkk suñ commune delluwaat suñ commune dem développé ko mais jàng mënut a ànd mënut a am sans dépôt ci dans de très bonnes conditions. ah oui. Ah, waaw leer na de. dama jàng fu nga nekk ci conditions yu yu abordable mais conditions yi les étudiants bu les lois. nekkuñ ci dañuy souffrir guddi ak bëccëg. waaw ah oui. autorité taxaw dañuy seetaan. te loolu lañ bëgg mu jeex fi nag. loolu lañ bëgg ñun ñu xam suñ parents yi nekk commune Boulel ñu xam ko ndax loolu bi dañoo métti ñun dañoo sës. dañoo dem ba sës moo tax ñu ñëw taxaw di def lii te bépp bu nekk Boulel ñu ngi lay ñaan lii nga gis ko nga déglu ko. ndax nga xam ne say doom ak say rak ak say jarabat ñoo ngi sonn booy bëgg a dee te ñu ngi ñaan wàllu ku leen jàppale. Ah Madame, qui est responsable de la commune de Boulel vous êtes le maire de la commune de Boulel je m'adresse à vous en tant qu'étudiant êtes le maire vous n'avez pas fait votre rôle ça je vous le dis Nous, ay étudiants de tey yaa war a nekk suñu responsable dans la commune de Boulel. ah ndax ñun ñoo la faloon teg la suñu ah commune. ah te yaakaar naa biir commune ba mënoo am ay personnages yu ñu ëpp rôle ci biir commune ba ndax ñu nous sommes l'avenir de cette commune. Ah ah yaakaar naa nag su ëllëg boo fi jógee su ñun ñii ñoo la war a remplacer. merci merci te yaakaar xam-xam bu fii rek lañ ko mëna roté mu université Cheikh Anta Diop te mënuñ ko am sans nekkuñ ci de très bonnes conditions mënuñoo jàng te fi c'est impossible mënuñoo jàng te duñ lekk loolu mënut a nekk bala a jàng nga am fo fi da ngay da ngay da ngay fanaan ci couloir yi wala ngay xaar sa morom nga tëdd xaar sa morom moom jàngi nga tëdd loolu dafa ñaaw ci étudiants yoo nga xam ne ay commune de Boulel am na plus de 300 étudiants si université Cheikh Anta Diop rek laa wax nag te am nañ yeneen yeneen yeneen yoo xam ne yeneen université yoo xam ne suñu rakk ñu fa nekk ak suñu grand frère di dund les mêmes situation que nous lu mel université Gaston Berger lu mel ni université de Ziguinchor Bambey Thiès suñuy rakk yi dañuy dund lu mel loo xam ne nii ñun moom la ñu dund tollu dafa war a jeex commune de Boulel ah ndax yaakaar naa yàlla jox nañu autorité yoo xam ne nii war nañoo mën a fajal si soxla xoolal fii da ngay gis ay jigéen yoo xam ne nii ay xale yu ndaw lañ ñëw fii ñàkk logement mooy tax ñuy jugee quartier ñii di jugee ay Géejuwaay ah ñii di jugee Kër Massar xoolal di jug ay 4 heures du matin te xam ne Dakar manque de sécurité bu fi nekk ñu ñu ay doomi bu leen la ñuy def ñu ay doomi bu leen la te ñu ñu tey yaakaar naa ne dara mën a leneen bu boobaa maire yow tu es le responsable ndax yow yaa wutalu étudiants yi logement étudiants bu leen luwaay te lii nag may bëgg a wax dama bëgg yéen suñu parents yëpp ak bépp jeunesse bi nga xam ne commune bu leen la nekk nga déglu lii may bëgg a wax bu baax a baax c'est vrai que anciens étudiants yi def nañ seen rôle mais am na lu def lu bëri mais problème yii ñuy dund yëpp mën naa ne monsieur le maire moo ko waral li tax ma ne monsieur le maire moo waral lii rek moo tax ñun étudiants bu leen ñaari at a ngi nii maire joxuñu seen subvention. way way way way du yoon du yoon du ñaari at a ngi nii maire téye suñu xaalis. joxuñu seen situation subvention bi tay bo xolé toll na ci 1 million 200 te ñu ngi waaj dem 3 troisième année bo xamni ne met joxuñu situation subvention. imagine toi yow yow amical fi suñu morom yi amical rek ñofi nek ñi ngi dund dans de très bonnes conditions ñun da ngay day yeen étudiants yo xamni dañuy dëkk dans d'autres régions wala dans d'autres communes ñun dañuy rus sax taxaw di wax ak ñom ah oui la situation yi ñu dund ak ñom ñu dund te moo tax bu ne wuñu dara. gënu ñoo compétent est-ce qu'on que gënu ñoo compétent résultat yi ñu am yu ko raw lañu am mais le problème en est que

da nga ne commune de Villers kenn xamul ñaata village ñoo fa nekk. du yoon est li ñuy génne résultat ba amul benn commune bu koy génne dans la région de Kaffrine. waay amul nous sommes les meilleurs étudiants de la région de Kaffrine loolu je le dis et je le réitère. kon ñun yaakaar naa kuy dund dans de très bonnes conditions ñun dañ war a mën a bokk. parce que nous avons mérité ça parce que nous avons mérité kon mais tey situation yi dund ñii say doom ñi taxaw di wax ak yow say moromu doom lañ yow yaa war a jàppale. ndax yow ñu doon la foloon le élection locale yee weesu te nag ñu ngi jëm les élections prochaines te nit ku ne nag li nga leb rek lañ lay fay. ah oui situation ñuy dund jàppal nag vous êtes le coupable. ah oui. lenn nag ñun étudiants li ma la waxoon au début ñun dañoo sës. dañuy alerter. dañuy alerter. je vais te

ñu ne di jàpp leen dañoo sonn li may wax nag lii dama bëgg suñu parents yëpp ngeen déglu ngeen xam ne tey laa leen wax seen doom yi mosuñoo dund dans de très bonnes conditions ay jafe-jafe rek la seen doom yi di dund te lu lépp suñu maire bi moo ñu ko waral ndax ñaari at ngay jox ñu situation dama bëgg nag yéen suñu parents yi ngeen jóg tamit ngeen ànd ak ñun si xeex bii ndax seen doom yi dañoo sonn dañoo sës moo tax tey ñuy waxee nii ah, ñu neex amuñu lu ñu neex amuñu lu ñu